jaamaro ji le day ah war nañ cee wax de war nañ cee wax de source aané lii xeeñ daal neexul déedéet dama ne la feebar bi le li ciy xeeñ neexul de aha maa la ko wax parce ay bakkan yu bare bari day rot ah, bu yeboo ñu commencé tiit nag maar di taali parce que bi feebar bi duggee ci réew ba léegi ne la dee bii nag mooy bu njëkk waaw ci benn bis rek lu tolloog juróom ñaar ci ay doomu aadama kon jàngoro daal di leen daan juróom yëpp xamuñu fan lañ ko dëggee ay communautaire lañ waaw xoolal ci diwaanu Louga gee saa yi bu ñu xëy muy gën di doy waar maanaam moo nekk ca réew moomee di Louga wàll na ndeyam mbir ma de maar di taali waaw waaw te nag maanaam askan wa ñu ci gën a bëree bëri dañu ko doon fréquenté di ñëw ca moom laay laay la la naama faati directeur wàllu Dakar ci exclusif ah na gis nga jàngoroy corona ji lee li koy faj waaw nekkul ay masque nekkul ay gel déedéet waaye technique ñi seeni biir kër jox leen añ réer ndékki ravitaillement yéene kaa ngi ne docteur Aloyse Diouf waaw dama ne la am na lu comité lool parce que docteur Diouf day ah nee na dama xamul luy ndayuk ñu daal di tëj nag néegu yàlla yi jumaa yeeg église yi ba noppi nag daal di bàyyi nit ñuy daje ci ay marché lu ni mel looloo jaaxal ñëpp les seco yéene kaay ne ñii nga xam ni kon dañuy dëgg feebar bi te xamuñu fan lañ ko jëlee dee cas communautaire yi waaw loolee na commencé naa tiital kon askan wi la laas ne Ndakaaru jël joob ak banlieue ba dee tiit nañu de jaxasoo nañ de lool boog soob li ne Dakar kay ah doomu jàngoro ji nag fi mu nekk nii da koo war ndomba dee mardi tali waaw waaw parce que ci benn fan rek cas communautaire yi daal di jóge ci fukk juróom daal di kon dem ci ñaar fukk allahu akbar ña commencé sax de waa Tëngéej da ngay lox allah akbar wa ki remplacé Kër sar kay waaw menace la menace la dama ne la xolal ma rond-point bële bomb la de waye bombe bobé légui ñu péral ko inshallah dama ne la ay téméré téméré car yo xamni kon day surcharge fees daal ñoy daw ci diggante Kër sar ak ko gogé critique yéene kay né waye est-ce que nak duñu mujjé rek fatagum nit ñi wala fat leen sax nak ben yoon en tout cas conseil des ministres ba dé corona ga laal nako dé de ah, waaw waaw laasé dëgg la parce que que Macky Sall ci boppam kon daal dinay fattu nag ci biir këram ña nga xam ne ñoo fa doon ñëw di indi ay lettre courrier ak yooyee nee na na dakk na dakk de sur quotidien ne bàjjenu gox yeeg ASC de ña ngay sensibiliser le témoin yéene kaay ne waaye école privée day waaw ña woo gouvernement Macky Sall bi ngir mu dikk na teg leen loxo école privée kay waaw sonn nañ de lool Dakar Times de gis nga corona ji ci Afrique waaw lu tolloo fukki junni ci ay doomu aadama lan moo tax ba masque yi ré mënuñu koo forcer nit ñi ne leen di ay masque par force parce nag moo gën a gaaw ci frais de transmission communautaire yi ñi nga xam ne kon nañu koy dëgg te xamuñu fan lañ ko jëlee waaw masque yee gaaw ca loolee dama ne gis nga ci duwaanu Tambacounda gouverneur ba ca boppam ah, nee na Marseille de léegi nag ñëppay takk ay masque bu naa ah, loolooy dëgg de évidence yéene kaay ne moo taxit Macky Sall de waaw mi ngi ca ñax ministre askan wi waaw njiitu réew mi tey nee na gars na mbir mi gaaw farata la faratal la 24 heures ne am na ñoo xam ne seeni bërëbu liggéey kaay tey boo sàgg nañu dàqale maar di taali ak ay chômage technique ak yooyu waaw moo taxit Macky Sall tey ma ngay soppi ne ko duy travail ba ñëw enquête yéene kaay ne lu leer nga wax gars yi boo sàgganee rek adduna wàcc seen kaw musiba mbaa ba kumba nguur gi commencé naa tiital ñooñee de ñii liggéey l'observateur ne Macky Sall dafa mer de lool rawatina borom hôtel yi nga xam ne ko dañoo siisu ne joxe seeni hôtel termine Macky Sall xanaa xamoon na ñaari mbas ko wër ñaari mbas mbasum corona ji lée ak bakkanu sénégalais yi nga xam ne kon mi ngi ci xottu gerte nit ñi fi mu nekk ne danoo sonn de lool bir bi yéene bu yeboo ñu jàpp ci doomu réew mi Macky Sall bu yeboo mu jàppale te jàpp ci mi lée préférence waaw waaw dama ne la xeex bi nga xam ni kon ñu ngi koy xeex wàllum corona ji ah ana jooni jooni rey nañ ko yàgg na waree ngi nii ay biteel lañ ko sampal bâtiment travaux publics ñu ngi ci sukuraat te moo ni secteur ah, li def kenn defu ko Tahirou Sarr Baba deuxième rang ñooñee rek ñetti milliards ak juróom benn téeméeri million la ñu joxe ay laay la la Serigne Mountakha Mbacké ñaari téeméeri million allahu akbar ak yeneen i sax yoo xam ne kon joxe nañu ana tubaab yi lu ñu joxe Orange Total Eiffage Enan Chine boo dajalee ñoom ñëpp juróom ñaari téeméeri million ak juróom benn fukk 760 millions jàppale doomi réew mi gën ci yéen de Direct News ne dama ne la xoolal ma scandale financier bi la am ta fu nga xam ne dañu koy fay ñaari yoon eh way Samba juróom fukki millions ak ñett yu kañ la wala dëgg la termine yéene kaay ne lii dëgg kay waaw mooy deew Iba bi le ñoom daamamaar retour de parquet vox sobli ne xale bu jigéen bi Iba Caam de mujj nañ koo jébbal boromam démb allahu akbar allahu akbar l'observateur ne coowal Iba Caam boobee waaw jël na nag beneen tournure parce que procureur sëñ Bassirou waaw nee nañ ca ubbi l'enquête de lañ war a ubbi enquête kay libération yéene kaay nee na teranga gol waaw oru Sénégal bii nga xam ni kon daf cee dañ leen a nax lekk seen vingt millions de dollars allahu akbar la ilaha illallah teranga goldu dee la mu génnee du tus te dana lekk ci ooru Sénégal bi un milliard de dollars la ilaha ca toolu jamaa ya nekk fële te saba dollar tey Sénégal ak tubaab yi lée dana ñu rey fees ñu seeñu ñu waaye nag gars yi ak lu ñu sàcc or bi or bi or bi or bi or bi or bi pétrole bi buñ ko fàtte de déedéet parce que suul gaz du ko xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy teree boo paree mën